chiều chỉ có chiều mà anh lên qua sau lòng của gia đình là gia đình là chỉ có chỉ có chỉ có chiều mà anh lên qua sau lòng của gia đình là gia đình là chỉ có chỉ sao pico chỉ có chú ba hô chỉ chỉ có chỉ có chỉ có chỉ có chiều mà anh lên qua sau lòng của chơi đình chơi gia waroo yomb naag te yéen sa sër ndax moo nga. eh Ndefadu pour bañ ngay jooy lay jooy eh si bi xamal laa laa lay jooy fi amul amul négocié de leen la fi amul négocié ndax kii suñ ko bàyyi fi dala rey et c'est un vaurien jàpp jàppale di la dóor nii mel ni mel eh. ni mbaam ci jigéen soo ko soo ko moom téye na la bàyyi nga dem gis nga ne certificat médical baa ngi nii ak ak ak bi. gis nga bi suba incha allah damay xëy yóbbu ko tribunal amul dara dara lu ma si del dellu gannaaw est ce que ma la wax da kii su ma ko bàyyi fii da lay rey leen laa la xamal nag gis nga man nag sa yëf ñàkk fayda si nekk nekk fii di jooy amul amul dara loo mën a wax ba ba mu baal togg sëmbul mu def li kon soo ko toogoon ruy xanaa da lay rey kon eh yàlla dégg nga ma la wax gis nga nag man su ma xëyee suba incha allah dama koy yóbbu tribunal mu neex la mu naqari la da kii sa sa sa xam nga sa lu wax instant yi quoi man maa ngi dem nag eh maa ngi dem nag laa la te nga bàyyi la sa xel bu baax incha allah suba amul bu noo fexe fexe fexe ba duma ko yóbbu tribunal incha allah waaw maa ngi dem. defaat gaaw mi lan moo xew man taluma sax reer dama woo bu téléphone ana day faat mun da ngeen am ay problème ba ñibbi gi seen kër yow bu daa moo la def nii kon bu moom ba léegi bàyyi bëti jàmbur yi muy lekk nit ki dafa dof wala lan yéen lan ngay war a jote bu dafa xëy joxuma dépense ma yónni moomoo si sama mag bi buur pour mu may ma lu ma yokkee buur may ma 3000 léegi moomoo am benn xaritam boo xam dafa amoon ak moom problème moo war koo jox deux mille cinq cent mu jël trois mille yi jox ko deux mille cinq cent mu des cinq léegi cinq cent ci laa toog xalaat xalaat xawma lu ma ci togg ma togg soom bi ma toggee soom bi daa ñëw añ jot ma taajee ko soom bi bu daa lu tax ma koy toggal soom bi <laughs> dóor ma wat ba yàq sama bët bi nii bu du koñ ba damay rey def sa bët bi kay li mu def daa man a paase rey mais kii dafa dof wala lan yow ci xewal dépense ñu débrouillé ba toggal la soo mi nga naan da dóore mais dafa doon dóor wala dafa doon jam ci wet sax ah. doon dóor. bu daana jot na sëpp ñu wax ak ñun xam nga laa bëgg xam nga sa mag bi noqoon na ko sa mag boobu bu loolu n'est-ce pas na ko cette fois-ci dina gën a metti ci moom xam nga laa bëgg nga fomp sar ngooñ yi bul force jooy yow tamit. nga fopp sarangooñi ya may deg tok fi xam ma dem lijeenti ko ci ñoom est ce ya yaa deg bu baax bu la dara met yow lula la mettoon la neex am teel li déedéet mbay mbay sa haas duma ko la mbay yaa ngi jamono yële ci ginnaw dama amul borale mu dépense mu ñëw di la leb si ñaanu mu la sax dama laa leb nga ne ma sa jëkkër laa jëlal ma may la nga gis bu daa wax ko ko bu daa ñëw tëggal mu biir si bu rëy saaga ndey sax def na ma ko man dama koy wër di ko weer ci dëkk bi. Ndefar dem bëgg xam benn affaire ma lo xamé bu daa moo koy def mo mais man duma ko def ah man maa ngi soog comprendre li tax ma ñëw sa kër di la nuyu nga may bakkan defaatu man maay sa borom kër man maa la jëli sa kër indi seen kër indi la kër bu daa kon boo amee problème dama ko war a régler bu daal la ma ko wax ak la ma la wax dafa bokkul moom moo réew di def li muy def mais man duma ko def man laa bëgg nga xam lii man maa la ko may ci xol bu sedd guy téye ko ma dem lijjanti problème bu daatu ñu toogal fii nag bul dem fenn toogal fii xaar bu ko ñëw est ce que yaa may dégg bu baax teel am doo ko wax bu daa man teel day faatu fekk dafa tax bay lekk ba tey kenn xam xam tànn ba yaa ngi féex rek maa ngi féex waaw. man de Modou moom moo doon ma wax sax ndax man da ngaa xawoon a toog mais yaa ngi féex bu baax rek. maa ngi féex waaw. soo gëjee gisee nga gëj maa gis sax xam nga temps dama faa ñëwoon. Mhm. paa bi di ma keneen ay problème moo tax nga gëj maa gis. Mhm. mais yaa ngi féex rek. maa ngi féex waaw. dañ koy comprendre rek. ay dëgg la mu naanakante rek. tante baal ma hmm. non bilaay baal ma parce que tante 2500 yooyu boo ko jël woon jox ko Moussa. kon sama nijaay jël tëb mais dinaa la wax leen nag tànta gis nga xaj yi sax kenn dóoratul leen ba nga ba nit mën a jàpp jigéen di ko dóor dóor ba def la tànt li dafa ñaaw mais nag yàlla gëmul nelawul da du tëj bunt wàcce uh-huh. la wax nag trop man sax moo li ma ci gën a jaaxal mooy jabar boo ko bégalatul joxatoo ko ngeen di wéttalante ah wo ngeen daal di bayante ndax man kat waxut wax dëgg yàlla sun tàntan nag foogu moon ni sant njaay di adina àgg moom fii mi moom bett na ma trop comprendre rek ndogalu yàlla ya ya, la yàlla baax na yéem na mais essayé ba metti bu baax baax baax na ni ngi tane waaye ci biir la hmm. baax na tëdd tantaam ñoo la ko jox moom ku leen bàyyi. jërëjëf merci waay. dañ fi jaar. doo leen toog. waaw ah, baa ñu dem. doo leen nga. muñal. yàlla baax na. teg ko jox ma bët yow laa. waaye ban bët laa lay jox. eh jox ma bët jàmm. xool bu ma fontoo bët defaat teg ko fi. mbay dimbali ma ak ay bët waay booy. eh xool bu ma fontoo laa bu daal tegal ci bët bi laa. mais yow mais mais mais je rêve quoi mais bu daal da nga dof wala moo la mais bu la dox joxee doomu jàmbur ji munoo koo toppatoo loo ci jóg. gis nga boo dof dof lo ba ñàkk sa jabar gi di nga mère ko deful dara yow bu fekkee da nga yor ay rab doom wax mu ndëppal mais trop c'est trop boy ah top top. ka bay bay tinu sa merde wa yow xamoo nu mu demee nga topp naan ay trop c'est trop yu kenn xamul ah man magum jëm yëkëti sama défense ah jox ko ndey faadu ah pour mu togal ma añ ndey faadu dem di ma togal somi yaa mën a mais arrête ndey faat joxoo ko dara joxoo ko dara ndey faat mo ni di dépass dem ci grand frère mo xam nga ko bax moy ki la nokkoon jox mu liggéey yow joxewoo jëm soomi di la jëgal suum encore da nga demat ci ndey faatu comprendre mu wili parler la sama diggante yow ba nga ñëwaat fi commencé na ma ay sa nekkut fu ma dem est ce que yaa ma dégg jàpp doomu ko bëgg a xum fa et puis bët bi tek ko fi mo fa doon may munoo ma dimbalé bët ban bët la yor. mais Ah, daal lan mooy problème ah yow lan mooy ce problème. am indi nañ ci convocation. dinañ indi leneen lu dul convocation boo di bët jàmm leneen dinañ ci indi lu convocation soxlawuñu koo gis sax te yow billahi la ñu xamoo ko bu daal continuer nii rek ñëpp ñàkk nga ni say mbokk yëpp man nga ni c'est normal rey ci àdduna te du ma ko nangu man dama lay bàyyi dina ñëpp bàyyi na la lay bàyyi baal la nga def. yow jërër gi sax mbay toogal. mbay. tu es mon lépp loo wax rek dama lay comprendre parce que gis naa ni da nga mer mais mbay Ndeye bu ñu jaxase quoi dëgg la nag sa xol fees na. mais lu mu fees fees man xam naa ne maa la gën a fees la xol parce que tamit lii xew metti na ma lool waaye mbay boo jógee dangay dem ci buur parce que buur moo manigance li lépp xam naa nag amul lu la neex mais nag lii boo ci taxawul dina metti trop. ah yaa ngi soog a nangoo nekk nit bi leen déet da nga def sey fi dof ñun la plan nga bëgg nek nit bañal jug ci li nga nek deg na baax li mo wax bañal jug ci li nga nek nekk waaw da. Ma ngi fi rek yaay boo jugul lu baax de lu xew ma jam, lu xew yaay Ndeye Fatou ma yóbbu police. police jàmm. lu xew bu da day miin këram sax. ah. lan la. yaay Ndeye Fatou dama ko jox dépense. waaw. pour mu toggal ma pour mu toggal ma añ. Hmm. dem toggal mu sombi. sombi mel. loolu tax nag sama xol fees. ma topp sama jikko xam naa daal li ma def moom rëccu naa ko noo def mbaa jàmm waaw dama koo gaañ ci bët gaañ bu dee xanaa dangaa dof bu dee dangaa tàng de wàññi sa dagan sa danga nga nekkee wàññi ko da dangaa tàng te fii si Sénégal suñu sàttum réew daf ñuy tere ñu dóor jigéen rawat na nga di ko gaañ ana nday faatu nag. mooy seen kër. su ma jógee dinaa fa dem waxtaan ak moom. day convocation sax la laa ilaha bu daa foo ma jëmee xam nga jaboot lépp luy dal doomam rek yàlla nekk jàmm. oui sama ndey man defum toon ni damaa tiit. man aw ma toogaay de damay dem gis Ndeye Fatou aw ma toogaay. li ma def neexuma ak lu mënti xel gënal <laughs> waaye nag des fois nga def loo xam ni boo paree da nga koy rëccu. <laughs> waaye bu ñu ba ci biir yaay Ndeye Fatou moom toog parce que waru maa yëkkati jox ko sama dépense. mu ne nu ma doggal sombi lan waaw loolu loolu du dëgg te loolu du yoon tamit man mii sañ ma ko def sa pàppa mais ak lu mënta demee rek jigéen kenn du ko dóor jigéen ñun jigéen suñu xel mi dafa gàtt matuñu yéen yéen ñu mottali jigéen kenn du ko dóor mais dóor yi ëpp na wàññi sa xadar dangaa weex te yenn weex yi du la indi lu dul musiba yaa ngi tey di ko réccu Barra? convocation baa ngi. ah man aw ma toogaay man seet ndey Fatou aw ma toogaay. lii lépp nag magam bu parce que problème bu góor borom sikkim boobu. waaw waaw moom moo def lii lépp waaw waye yalla baxna na lepp ay detail la après meun nañ ko nañ ko nañ ko lijjanti yàlla dafa dafa sot rek dafa mer rek dafa mer mais man na fa dem na waxtaan ah, ak day faatu waaw man maa ngi ñëw dem yaa ngi dem ma ngi ñëw dem ah ya ngi dem dama ma du ma nelaw yaa ngi dem ma ngi dem delloo ci moom delloo ci moom woo oh, oh. mom, dello ci burbi I love Dello ci mom, dello ci mom, oh Dello ci mom Sen bir ürek Okey Ay, nerede oldun ha? Nerede? Aşağı lan. Nerede? Hadi gidelim. Bak. మాకు జగ్గులు అంపాలి అంపాలి అంపాలి అలాగే మాషాల్లా దగ్గర నా పేరు kon bi yepp a ngi wax. ah macha allah macha allah macha allah macha allah allah. wax deug yalla yepp naa sax. alhamdullilah alhamdullilah alhamdulilah. sama yaa jamba ba sant yàlla alhamdulilah. waa kër ga. ñëpp ak alhamdullilah alhamdulilah. dama la soxlon tay pour ñu waxtan wa bismillah bismillah hmm. euh ndax dama for ci Bouda. Hmm. mu ni problème ak Ndeye Fatou. Hmm. da nga ci porté plainte. waaw. Ah. ma bëgg nga xamni man musuma fi ñëw di la ñaan jek té am lo xam buda moo koy def mais man duma ko def budul dara mhm. nday fatou mako ñëlé ci loxo mhm. té ko ci loxo buda mhm. góor ma bëggon nak ay nit bu ñu té mënu ñu bàyyante dañuy jëma a tanante exactement léegi nga wax na nga ñu tanante comme mu ñu tanante kañ baa mu dem ci yoon rek inshallah mu jeex ben yoon góor dama bëgg nga retirer plainte bi xamul tax bu daa boo ko yóbboo ci yoon mën nga yóbbu ci yoon ndax man maay sonn mhm. bu daa ay mbokkam bàyyi nañ ko mhm. ay xaritam bàyyi nañ ko mhm. ay àndandoom bàyyi nañ ko man kot la dese bu demee ci yoon maay sonn maay yóbbu añ bu amee amaan maa koy fay maay def lépp te buur yàlla suñu borom sax bu jàppee dañ koy ñaan muy bàyyi euh, leer wax dëgg dëgg légui dama bëgg nga bayyi lepp mu sedd man lima wara nijeent yépp na ko nijeent ba problème du am doguma la señ bi doguma la même man même man so bëggon retraité sax wa wa wa après duñ ko bayyi ndax affaire bi dafa graw graw bo xamné yo xam nga bax buda buda il prend ah, il se prend pour qui dafa yaké mom mom lay nit ñi japp dur gudd ak bëcëk lu ko neex def togg sumb dafa jar mu tej bët bi non ko su ko toggo ri xana da xey ray gis nga man nak sama wax nak ben la dama am liggéey ma def bu daa dama koy yóbbu police dama koy yóbbu tribunal sax laala mu amul len len len ba kenn kenn mën ñaar bu ma baal ko ndax li dama métti métti boo xam bu ma sax wax yàlla xam sama biir wax man li ma gën intéressé mooy yow nga retiré sa plainte rek nee la yàlla sax dëgg dañ koy tooñ di ko mu ñuy jéggal wan bu daa il faut il faut ñu wan ko mooy kan bu daa il faut ñu yar ko sëñ xam nga bu il faut ñu yar ko suñ ko du dafa ah, nit ñi bu bi yaru ci na xam nah. la bëgg du ma jël sa temps dama lay bàyyi ngaa def sa liggéey man bu ma la demee naa la woo téléphone incha allah ñu continuer waxtaan d'accord kantaa xel bu baax li ma la wax man lu ma la dara man xam naa man def moom dinaa ko def ndax sama sœur du nangu kenn kenn di ko def jooy la surtout mu doon ay budaa bilaay li xam may kan li la la na incha allah woo incha allah incha merci beaucoup incha maa koy ko baax merci beaucoup ok jërëjëf salaamaaleykum. na ngeen def. sama yang yaa ngi ci jàmm. xalaat ngeen. day faatu. na ngeen def yaa ngi ci jàmm. yang ngi ci jàmm. ah ndey man damaa tiit lima may li may li may dégg nag te tey ji laa ko yëg. bu daa sànq la ñëw sama kër. du ma wax yëg naa seen problème ne dalaa dóor ba gaañ la. dinañ koo porter plainte. ndey seet ma ci nga dimbal mi nga jaar nga seet ma ci dem ci guddiba legui nelaw ma jabo lu dal domam rek du talal nelaw te nday da nga sey buda am ci mom ak njaboot te tay jii sey to buda ay sey sey ay sey dom ngay seyal kon set sey dom, nga set mas ta yalla tax plainte bobu nday dama bëgg bu ak jam nga dem nga retiré nga retiré plainte bi ëllëg sey dom dañ la koy xasse te duñu xam problème bi fan la ñu ne la yaay yaay yu sama papa euh, police ñii dañ la ci enal ñii dañ la ci xolé ben bët bo xam ne war ñu la ko war ñu la ko warni loolu jigéen ju nekk war nga war na koo sóor bien bu da dafa tang man mi ko jur xamna dafa tang mais nak jéggal ko ta yalla tax waaw loolu doon sama gis waaw rok da nga def da nga bay sama gistuma sax nak ndey lool sama tank ni tay waaw marek. ma rek nga retiré plainte bi nday wa dimbali ma ndax man mi tay la koy soog yek mhm. mais baal ma nag si si dagg bi waaw da ngay wara bay di lak do di do do doomu jàmbur non nga xam nga yow yëg bu baax li li bu di def en ah, sama rak ji te xam nga yëg bu baax instant yi du ko do tej bu boppam man instant yi le coup de la partie li ma def def naa ko pare déet suma ma ni dañ ko yow carré déet sama dom déet sama dom doom suñ ko baye ni du baax yaay booy tay jii la ko yëg dom bu wax lolu kii jaral na ma lu ne tey jii laa ko yëg tey laa sol sama dàll dimbali ma ngir yaay rek ngir ngir retiré plainte bi bu ma ko yëgee tey jii xaw ma ci lu ma lu ma xaw ma lu ma lekk lekkatuma naan damaa jóg subitement rek ñun naa naa seet si Ndeye Fatou kon lii moom tëral leen ko ci suuf. lu la metti mhm. man rek metti ma lu ëpp. dëgg la. ndax yow foofu dafa ah, ah, xaw ma sa li may wax ma li mu def ni dama metti nag koñ bi da ngay chaque yaa ngi dégg bu daa bu daa Ndeye Fatou bu daa Ndeye Faatu togg soom bi rek dafa jaral mu tëj ba dem nii. te même même fekkee man sax maa bëgg a baal ko waaw ah, waa waa kii duñ ko baal. déet déet ndax lu ko disapp dafa métti yaay. déet mais xam naa ne métti na. métti na waaw loolu yow mënoo wax fii ba bu daan ko nu ko. sama doom il faut yar il faut sama doom déet bu leen bu leen doxalee noonu. seet kii dafa am ak Bouda ak njaboot. la ku ne xam na ne Bouda dafa tàng. Mm-hmm. mais amul lu ñu lijjanti ci kaw suuf. Mm-hmm. gisuma ko kon lii bàyyi leen mu sedd. Mm-hmm. bàyyi leen mu sedd loolu moo nekk ko sama tànk

có chỉ có chị yêu mà anh lại qua sông lòng với Jadila Jadila chỉ có chỉ có chỉ có chị yêu mà anh lại qua sông lòng với Jadila Jadila chỉ có chỉ chị Sopico chỉ có chú ba hú chỉ chỉ có chỉ có chỉ có chỉ có chị yêu mà anh lại qua sông lòng với Jadila Jadila